xasida yi nga wékkoon ak li ma fekk ci biir bi li lan la. waa lii nii. Mhm. sama sengoor la gars yi nañ day xaw xumbal tuuti quoi. waaw lu ñuy xumbal ñoom ay waxu xumbal de wax dëgg yàlla ak yeneen wax. Mhm. wax dëgg yàlla ak yeneen bi man ay yooyu moom dépassé naa ay xumbalaate ay ay xuxalaate. Mhm. naa ko yaa ngi dégg. yooyu moom sincèrement parle. ma ma ma mag maa mag yooyu. waaw yooyu moom dépassé naa. mais affaire yi bëgg a xam ba xam Idy mën na. waaw wala mënul. jëflanteel ak Idrissa Ndiaye nga xool. Mhm. après su la neexee nga dem si dëkk dëkk nga woo journaliste si site yi xam nañ leen. Mhm. ku bëgg xam ne Idi mën na wala mënul daal moom wax dëgg yàlla ak yonent bi. Mhm. man tollootuma fu ma naan maa fi defoon lii wala maa fi waxoon lii. la ma fi def moom c'est noté dans les annales. de l'histoire du Sénégal nit du ko dindi ci kaw suuf. Mhm. te samay doom duñ màgg ñu leen may ay way bu ñaaw jamais du am. Mhm. mais am na lu ma gis fee ci ruq bi yaa ngi am lu koy sotti rek loolu lan la. loolu jalang la. jalang mhm. lan mooy jalang. jalang xeetu tuur bu ndaw la rek. tuur boo xam ne maanaam doo mun a dem. li nga war a dem géej des fois wala nga war a dem euh, say xàmb di ko fa liggéey. mun nga ko liggéey fii. fii nga koy def. mais dama gis li ngay sotti daf mel loolu moom da koy naan de. waaw da da koy naan su doon tere tamit su ma ko da ngay gis day wow uh-huh. koy naan lii dañ koy yebal des fois. waaw ma jox la exemple dañ koy yebal suñ si liggéey li ñu war a liggéey def si ginaar gu ñuul ba liggéey ko. Uh-huh. ba tudd si turu nit suñ ko si nit ki nga bëgg a xeex ak moom. Uh-huh. da koy ŋàcc rek. da ginaar gi ngay teg fi ginaar gi doo ko rendi. soo waxee jet ginaar gi ba ginaar gi tëdd da nga koy teg si kaw béjj ni ginaar gi soo xoolee béjj ni dañuy ŋàcc deretu ginaar gi. da koy ŋàcc te te kenn du ko rey. da koy ba ginaar gi ne kan da nga sedd. nga yóbbu ginaar gi sànni ka nga koy def noonu noonu lay mer rek. ndeysaan yooyu ay arme la yoo xam ne arme xeex la. arme mais du loo xam dañ koy defal doomu Adama Ndiaye wala pour pour pour yàq nit ki la. kon daal su ma la déggee Idy bëri na secret nekk ci moom. déggoo ma. Mhm. la ma mën ak a bëri. léegi du lu ñuy vanté xam nga gis nga quelqu'un qui qui savant maanaam taxaw ci média yi di vanté mhm. barke Serigne Fallou Mbacke soo ko yóbbulee malade du ko faj. man koo ma indil sama kër ma faj ko ba des xanaa ak jabet laa mënut a faj. ñett yooyu nga mënut a ko faj ñetti yooyu. Mhm. mais hémorroïde ndoxum siti impuissance sexuelle faru rab leneen loo xalaat tëju nit ku umu nit ku war a ibbeeku nit kuy war a lijjanti kayit si wàllu Europe. Mhm. mais nit ku waaye. am na loo moon sànq maanaam ci impuissance. ku ne xam na ni dëkk bi temps yi. bari na ci réew mi léegi. xam nga lii preuve la. waaw nit mënu ko def nañ ci date beeg heure bi. waaw pour yokk kàttanu góor la. <laughs> wala góor gu tële wala góor goo xam ne maanaam du teel a balaa moo ni ñoxor njaay rek mu pare waaw si yooyu noonu nekkul doonul góor sax waaye des fois rab moo koy def rab da lay maanaam jàpp ba jàpp say cër yoo xam ne maanaam ba néewal doole sa kattan mm-hmm. waaw loolu da koy waral mm-hmm. ak yenn xeetu magie yi ñuy jëfandikoo ak yooyu yëpp day indi impuissance sexuelle mm-hmm. ak ndoxum siti xanaa xamoon ndoxum siti dafa lié ak ay feebar góor bu si am hémorroïde début hémorroïde doo xool doo doon góor à cent cent ndax hémorroïde sidit la boo xam dafa jàpp si côté bi sa kanam nekk. waaw te hémorroïde dafa am ñaari hémorroïde. hémorroïde kii ak interne. bii génn ak bi bi génnul. te yooyu yëpp dañ koy traité. faj ko ndoxum sidit dañ koy faj. waaw yooyu yëpp maanaam jàngoroy kajoor yi ngay gis yooyu xeetu jàngoroy kajoor yi ay cataracte moom duñ ko faj nax loolu yoonu médecin la. yàlla mayaguma xam-xam boobu wax dëgg yàlla jonante bi. ak ay xeetu jabet ak yooyu. Mm-hmm. ndax jabet moom dañ waaw jabet noonu dañ lay baaxee jabet kànja da koy wàññi rek. Mm-hmm, kànja waaw kànja da koy wàññi mais amuñu secret bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ak yonent bi nit ki da ngay wax li nga xam ni moom nga mën soo tëddee nelaw. soo tëddee nelaw léegi ñu lay suivre ci Kewel Info. képp ku bëggoon jokkoo ak Idriss Seck Idrissa Ndiaye wala nga bëgg. yow dafa mel ni Idriss am na lu mu a def de. damaa nekk dëkkam tey moo tax <laughs> moo waral tey xam nga rek jaam kii bi jaxasoo bi bari mais képp ku jëflanteeg Idi fan lay jaar ak nu muy def. waaw képp ku bëgg a jëflanteeg Idrissa Ndiaye Idrissa Ndiaye mu ngi Thiès en face mairie Aline Saba numéro téléphone am di 77 378. 07 00 77 378 07 00 am na whatsapp mhm. soo ma woowee appel jot ma soo ma woowee whatsapp man ngay jot am personnel mhm. maanaam nekkuma sëriñ yooyu nga xam ne maanaam dañ naan jaaral fi jaaral fi déedéet mais damay dégg am ñu naan Idy dafa xaw a naqaree jot waaw des fois nag su ma nekkee si liggéey bi di concentré wu wax dëgg yàlla yonent téléphone dama koy teg mhm. nii nii suñu la la dafa guddi waaw mais bëccëg bi moom mënu maa nekk si WhatsApp mënu ma nekk si liggéey. Mhm. di nekk si WhatsApp boobaa ki ngay liggéeyal dafa yaakaar si yow yëkkati xaalisam xamoon nan la def ba am mhm. ko. Mhm. kon kooku da nga ko war a xam ne moom la yëkkati jox la ko. c'est très important. que ñoom dañoo yaakaar si ñun. te ni ñu yaakaaree si ñun yàlla bu seen yaakaar tasee si ñun. Idy mën na liggéey soxlawul ngay ñëw wala soxlawul may déggoo ma xanaa. damay liggéey à distance. waaw dañuy liggéey si match euro bi dañuy liggéey leneen ak leneen lu loolu te fii la ñuy toog nit day nekk ba kiri koro wooñu wax ñu soxlaam ñu liggéeyal ko ko nit day am projet bitim réew wooñu wax ñu ñu liggéeyal ko ko sarax yi ñu war a def de suñ ko génnee ci kàttanu yàlla wax dëgg yàlla ak yonente bi jàmbaar an deel a saro lépp dina jaar yoon lépp day may yoon. léegi damay ñëw na duggoo yow ci biir làmb ji. Idrissa gisoon nañu ko ay jamono ci biir làmb ji. mais dafa jékki-jékki daal di arrière dafa dajeeg ay jinne yu ko mën ci biir làmb wala qu'est-ce qu'il a. ma sax si mbirum làmb de. Hmm. mais ay kilifa. comme lu ko def sama papa Bekaay Mbaye. ah Bekaay dama doon waaj tuuru lëg daaw dem di ko solliciter wax ko ko. Hmm. ko wax ko ko bi ma ko ko waxee. Hmm. bi ma ko ko waxee. mu ne ma jàpp mu ne ma moom ak Saala Bigué. Saala Bigué Ndiaye. waaw moom père Saala Bigué. Mhm. Saala Bigué ma avant père Bécaye di wax Saala Bigué moo ma njëkk a woo. Mhm. ne ma mën nga leneen lu làmb bàyyi ko. Mhm. ñun xam nañ li nga mënee. ndax fii ma dëkk toog na ay ati at jëlul coupe yaa ko njëkk a jox coupe. muy gunay zeng. ma ne ko waa baax na ma demaat père Bécaye expliqué père Bécaye ne ma bàyyi làmb Idrissa dañ lay yàqal mën nga leneen lu dul lii. kon ñi la wax loolu xam nañ yow la nga mën. xam nañ leneen loo xam ne mën nga ko. mais des fois fëggu jeunesse. ak doole xale. dalay day tax maanaam yow ngay wane sa bopp. Hmm. làmb ji dafa bëri sot hmm. dafa bëri xeex. làmb ji bëri na ay jinne de. bu baax làmb ji mbër bu si amul jinne wax naa ko mbër bu si amul jinne demal nga toog. léegi yow ñun dañ lay ngemb ngembu jinne. ngembu jinne. barke Serigne Fallou suñ la ngembee ngembu jinne doo laal suuf. ak ku mu munti doon tasanteelal ku la neex. Mhm. suñ la ngembee ngemu jinne doo laal suuf. mais Idi am na ñu fi doon ngemb te ba ci biir dañuy am ay ay. man kenn laa fi ngemb. Mhm. ngemboon ak yeneen mbër mbër ñi ma ci ngemb ñëpp bi may ànd ak ñoom làmb. waaw mel noonu Ama laa ci am ak lan ànd mu am ci defet muy contre guy. mais ñeneen ñi ma si jot a ànd ak làmb ñëpp wax dëgg yàlla ak yonent bi. Mhm. ba ma bàyyi lañ commencé am defet. man man jël décision yóbbu mbër stade. ah mais Idy pare waat na pour retour ci biir làmb wala. pare nañ. Uh-huh. ndax mbër yaa ngi ñuy contacter. Uh-huh. ñi jege mbër yi tamit ñu ngi ñuy contacter. contacter comprendre nga. Uh-huh. mais dafa am nit koo xam ne man dafa maa marqué. muy kan muy muy Nicolas dafa maa marqué. Nicolas waaw kooku dafa maa marqué kooku dafa doon gor. dafa doon gor. kooku dafa mën ak moom fu ñu jaar fu bëree bëri waxuma ko ngir dara. mais Nicolas dafa am fu ñu jaar te moom xam na man xam naa. mais àll bee commencé leer rek ñu bëri takk seeni rajo di wax. waaye moom ku musa sonn si Modou la nag. ndax am na fu ñu jaar fu bëree bëri. Mhm. fu bëree bëri fu ñu jaar. kon nag yaa na ko yàlla defal jàmm rek. waaw ah, moom mais noo gisee làmb yi taxaw damay ñëw ci benn combat boo xam te ne bii combat bu doy waar la ñaari bagarreur la muy Tapha ak Boy Niang il yaa ngi yëngal de. xam nga dama am lu ma wax si waxu Tapha ak Boy Niang dama leen ne. Mhm. dafa yor ngembu roi des arènes. Mm-hmm. waaw loolu doy na lépp. Boy ñaar dafa yor ngemb roi des arènes. ngemb roi des arènes. maanaam koo xam ne dañ ko préparé pour mu dem jëli ju couronne la nekkul mbër boo xam ne dañ ko préparé pour mu taxaw. Mm-hmm. macha allah yàlla na ko yàlla loxol cat. Ah. mais noo gisee combat moom ak Tapha ah dina neex de. dina neex dina neex ku bëgg xeex. Ah. gisi xeex di nga ko gis. Mm-hmm. ñaari mbër yëpp dañoo pare mystiquement. mais te Tapha Tine dama gis ci moom. di ko xool côté penk bi gis gàllaaj gi muy indaale bu jugee penku. fekkee mu may déglu. Tapha Tine am na gàllaaj gi muy jëlee penk buy ñëw. waaw gàllaaj googu. du gàllaajam sax moom du gàllaaju xale. du gàllaaju xale. ndax làmb ji dalee na jaral moo tax am na làmb ji moo tax sëriñ su si wax. bàyyi la moom de deux jours. wala benn fan ñu dékk la micro nga wax. Mhm. nii nii am na am na combat yoo xam mun naa taxaw ne la diw mooy daan. Mhm. te loolu damay leer loo xam ne de moo ko may moom ak ñuy suivre Kewel parce que du ñëw fii ñëw ba Thiès. Mhm. nga may def ay falaa falaa faa nga jox xam ne kat li idée ko wax. non man man du ma falaa falaa. Uh-huh. man maay koo xam ni. Mm-hmm. su ma bëggee wax damay wax. Mm-hmm. ndax li may wax loo du Idrissa Ndiaye mooy wax. ok du idée wax. am na lu koy wax loo. Ah, la may wax loo mu ngeeg man ànd man. Mm-hmm. waaw dalay moom moom dafa gaaw si wax day jékki rek du ma ko sax tey ñii sax dañ may tere wax. ñi si doo ubbi bi rek bàyyi ko mu wax ma dégg. <laughs> ñu ngi continuer si làmb ji rek. Ah, léegi comme comme nee nga diggante Tapha Tine ak Lac de Guiers 2 neex la. combat boo xam tamit. dina bëri Tapha Tine Boy Niang. waaw Tapha Tine Boy Niang waaw. Mm-hmm. Boy Niang yor ngemb roi des arènes. waaw. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. Tapha si boppam yoraat ngemb goo xam ni. Mm-hmm. ngemb xale. du ngemb na ngemb goo xam ni du ngemb xale. te lu doy waar la. boobu. lu doy waar la combat ku jàpp ni maanaam day teel a jeex. Ah. yaa ngi nax sa bopp. combat bu jël temps daal. dina jël temps tuuti. round d'observation bi li ma ko waxee woon dina bari tuuti. dina bëri waaye ardo dina ci am yoon maanaam ñaari yoon. mais est-ce xamul ni kat ñaar ñi ay bagarreur lañ. xam nga lu tax lamb mooy ñaar à xeex. xam nga tamit xam tax lamb ji am na loo combat yoo xam sama laaj mën naa la ne la diw mooy daan. Mhm. mais am na combat yoo xam ni gars yi ñu ngi ciy waxtaan ak ñun. Mhm. doo ci mën a sori. doo ko bëgg a fësal quoi. xam doo ko mën a fësal. Mhm. ñu ngi ciy waxtaan ak ñun. <laughs> du lu ñuy fësal. ñaari mbër yooyu amul koo xam tamit ñëw na pour liggéey yow. non maanaam xam nga du mbër bee ñëw. du mbër bi en personne yi staff bi quoi entourage bi. am na ñoo xam ne jege nañ mbër bi am na ñoo xam ne bëgg nañ mbër bi ñooñu ñooy ñëw di ñu sollicité te man maintenant monument la te référence la biir Sénégal. waaw mhm. ah, am na combat yoo xam ne léegi Eumeu Sène Lac de Guiers coow li commencé naa ba te dara xewagul noo gisee combat boobu. xam nga xam nga combat boo xam ne Papis. Mhm. ndam laa koy ñaanal. ndax man Papis laa gën a xam que Eumeu Sène. Mhm. ndax euh, koñam laa loon jàngee. daana dégganteeg man téléphone ay jamono période bi may nekk Dakar mus na ma woo yaa ngi dégg. moom laay ñaanal yàlla may ko ndam ku nekk nag am nga droit far du waxu sëriñ. pour ñi koy seetaan ñu xam. moom laay ñaanal parce que sa dëkkandoo bu yàgg moom mënoo ko yéene safaan. dëgg la moom laay ñaanal. Mhm. maanaam mbëru géejawaay yi maanaam. Mhm. mbëru géejawaay yi parce que je suis né à géejawaay. comprends nga. amee fa sama teraanga man doomu géejawaay laa. Mhm. kon maa ngi ñoo bokk feef maa doomu géejawaay laa yaroo Ndakaaru. Ndakaaru samay maam nekk fa. mais lu géejawaay am dama cee war a participer dama see war a jàpp. Mhm. waaw mais keneen ku tasantul ak géejawaay nag. Mhm. soo ma seetee amul problème. Mhm. Balla Gaye Bombardier. Balla Gaye mooy daan Bombardier. non est-ce que nekk supporter Balla Gaye moo non du supporter dégg ma wax ñaar nga koy dégg. wiir wiir jaari ndaare. Balla Gaye day daan Bombardier. loolu moom j'assume. fekk naa ko Saalam ca Mbour mu ne ma 2 ma j'assume xam nga dafa am ay jinne. waaw mais bu boobaa ay jinneem du ñu ñëw. ah ay jinneem du ñëw. <laughs> ay jinne Idrissa ñooy ñëw. non du ay jinne Idrissa sax moo ñëw. ay jinne moom bari ñi la ñuy yem rek. ah bari ñi la si si ji bi jóg taxaw fa waaw. ci kàttanu yàlla loolu moom man maa ko wax. Eh. non Balla da koy daan. ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak yeneen fekkee lëkkandoo la sama xarit la. Uh-huh. te sama sëriñ la sëñ Fall sëñ Fallu lañ ko tuddee. waaw dafa am loo dafa jaaxal gars yi. parce que Lagros Lagros dañu dafa bokkoon ci ñi nga xam te ne dañu jàpp ni uh-huh. biir écurie Fass amoon départ bu doy waar. xam nga li ma naan seytaane loolu moom. xam nga li ma naan. Uh-huh. seytaane waxul dëgg. waaw yàq na xel. Lagros sama waay la woon. moom bu fekkee mu may seetaan laaj la sama waay la woon dañu doon déggante téléphone fëggu xale ko jàppoon fëggu xale jàpp ma loolu jeex na dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla suturaal ko mhm. man la nekkoon sama diggante ak moom wax dëgg yàlla ak yonent diggante jullit ak moroomam mhm. banaa baal naa ko mhm. ndax sama sëriñ la sëñ Fallou lañ ko tuddee te damaa bëgg sëñ Fallou bàyyi naa lépp suñu xarit la ñoo bokk ñaari tali am na lu defal ba nga génn taxawaat ni kat cinq ans du am ndam. waaw xam nga di parewul pour génnaat ni kat ni loolu jeex sama diggante moom amatul dara parce que cinq ans yooyu romb na. waaw comprendre nga suñ ci ñëwaat tamit ay gindi rek ay leeralaat la. mais dama koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. Mhm. yàlla suturaal ko yàlla aar ko. Mhm. ndax lépp la may lébu. Mhm. mu doon ñu tuddee ko Serigne Fallou. comprend nga kon mënu ma ko yéene safaan ndax sëñ Fall mooy sama sëriñ lépp lu ma jàppoon sama diggante moom wax dëgg yàlla ak yonent bi jégal naa ko bu yàgg mm-hmm. waaye dañ doon wane suñ bopp rek wane ni ñu doon wax Idrissa Ndiaye xamul dara Idrissa Ndiaye mënul dara mm-hmm. si lool dañ ci doon wane suñ bopp mm-hmm. waaw noo gisee combat roi des arènes bi Modou xam nga xam nga nee naa la Ama du ma mën a wax si combat am loo Lo du ma mën a wax si combat foo si nekk am naa fa malgré man ak Ama li ñuy diggante bëreetul amuñu sax maanaam coordonné ay nit a ñu ngi ci sonne woon moom ak guy gi waaw mais yàlla suñ borom fu ko neex lay yemale ay mbiram. Mm-hmm. te suñu borom moo xam lu ko neex moo xam luy xew suba. mënuma mm-hmm. lu doon ñoom ñaar ñëpp yàlla defal leen jàmm ñu wér ak jàmm egg si si bis ba jàmm. Mm-hmm. ama mënuma wax si kombaam waaye nag ku ma seet si ma liggéeyal ko. ku la si ko. ku ma seet si ko léegi bu la ñaar ñëpp ndakaaru maay fal maay folli waxoon naa ko dama koy waxaat ndakaaru. <laughs> Iba Mar Diop. Léopold Sédar Senghor. maa fay fal maa fay folli. koo falul du fol. ah koo falul du fol. dégg ma ay arène nationale foofu. tool wu gën moo gën a tuuti si tuutiwaay yi. mais fa ma lay yooyu ma nga koy dégg. Mhm. kay falu ndakaaru da nga fa jaar. Mhm. waxu arène nationale waxuma ko nag gëw ma ni fa lañ koy bëree. Mhm. dama kaa gëmul. gëmoo loolu. gëw ma ko. <laughs> léegi la taa may tàggatoo yow. ñi lay suivre. idi i faut mu am lu ñu may ñu xam ne kat idi mii kat li muy wax nii kat preuve yaa ngi ci loxoom mu dëj wala mu ci poosam. maanaam lan lan lan lan ngeen bëgg ñu may la maanaam. defal ñu kiraama boo xam ne gars yi dinañ xam ne idi mii kat ndaw. xam nga xam nga xam nga du idi ku ndaw. Mhm. nee naa la Idrissa Ndiaye la mën mën na ko. Mhm. comprendre nga. Mhm. yoon yamul si benn. dinañ defaat émission incha allah. ah doo may dara eh. xam nga dinañ defaat émission. waaw du ñàkk ñu jox la verdigu lamb yëpp. maa la ko promettre. maanaam jox verdu gu làmb yëpp ñu taxaw. te nit du ko dindi. luy am lay doon. verdu gu làmb yi. Mhm. wutal juróomi combat. yu mag nag wax la yoo xam ne maanaam kenn du ko suivre. Mhm. yu mag. am na am na benn boobu wax dëgg te boobu moom jàpp naa ko. pour ba mbas bi jàll su mbas bi jàllee. Uh-huh. ba combat yi taxaw. Mhm. ba si combat roi des sax soo ma laajee ma wax ci. bi nga xam ne moo taxaw. soo ma ma wax ci. waaye nii nii nii du ma. benn aspect laay dolli maanaam ñi nga xam ne ñooy commentaire. ñi nga ne ñooy lire émission jàmbur yi commentaire. c'est très important ma yee leen. nit ki xamoo ko xamoo nuñ ko juree xamoo fa mu bokk. Mhm. ngay commenter di ko saaga ay ndey. jaaduwul. rafetul ñun ñëpp ay sénégalais lañu. dëgg la Idrissa Ndiaye lii muy def nii nekkul da ko da ko sabablu. Mhm. yàlla suñu borom moo ko moo ko jaarale suñu jë. Mhm. ñu ñu ngi teral suñuy waajur ñu ngi dimbali suñuy am di jàmm ñu ngi dimbali ñu takk si ñun luñ bëgg a faj ñu ngi koy faj ku ñu yoon fajar tax ñu soxlaay un million ñu génne ko. mais ñoom di commentaire bi fi jàmbur yi la ñuy capté di saaga di wax te loolu c'est très important loolu amul solo amul sens. nañ bàyyi loolu. Mhm. man ku ma si saaga jéggal naa la. ndax am na ñu ma si jotoon a saaga fexe nañ ba doon ak man ay xarit. barki mhm. Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi wa taalahi. Mhm. nit saaga na ma ma fexe ba xam kan la. dem ba këram. ne ko lan nga ma xamal. yow la kan ma ne ko man la diw man mi nga commentaire lii maa la laajoon sa numéro. mais yooyu léegi bàyyi nañ ko. nañ bàyyi yooyu Sénégal suñu Sénégal la. ñoo ko moom na rafet. moom gëm naa ni moom Coupe d'Afrique bi dina fi dugg si. Mm. bi ñuy dem Cameroun. Ah. am naa si yàqin trop. ndax day dem ànd ak ñoom wala day xaar gaay woowu. ñu yóbbu ma ñu ñàkk ma yóbbal damay daggal mm. am naa am na yeneen équipe yoo xam ne ñu si coupe d'Afrique bi dama leen ñaanal Mauritanie est-ce xam nga qualification maa ko liggéeyal ba mu qualifié d'Afrique déggoo lu ma la xanaa. Mhm. ay seede ngi fii Mauritanie maa ko liggéeyal ba mu qualifié. Mhm. xanaa déggoo lu ma la. waaw mais di liggéeyal yeneen équipe. yoo xam ne ñu ngi Europe. te am sa dëkk moom. waaw am sama dëkk mais sama dëkk man. Mhm. je suis un citoyen fii laa juddoo fii laa yoroo mais li ma la mën a xamal ba xamal la ko. Sénégal mooy ñu ànd ak man ñu ñàkk ànd ak man. mun naa dagal sa bopp bi mun naa réserver sama bopp bi euh, hôtel bi ma nekk. BSR mun naa ko jënd sama bopp lépp mun naa ko jënd sama bopp. am na solo dem jàppale sama réew mu ñëw jël coupe d'Afrique bi. léegi comme ni ma koy sànq rek. Mhm. képp ku bëgg a jëflante ak Idy. waaw ba pare di ñaanal sama waa ji Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye waaw di ko ñaanal. mais loo gis ci site bi Kewel Info. waaw ah macha allah parce que li ngeen ko tuddee rek de. Mhm. du loo xam ne luy luy fay la parce que béjjënam lu ne lañ ciy liggéey béjjënam lu ne lañ ciy def da ngay gis mbëri sax dañ koy bàq ko si lamb ji des fois dafa doon bi may commencé mhm. fekke sama lépp mhm. Fallou xam na koy idi bu baax a baax Fallou su fi toogoon tey su ma bëggee wax loo yenn wax yi mhm. moom xam na fu muy jaar ba ma wax dëgg nga dañ koy ñaanal jàmm di ko ñaanal lamb yi mu tëral yàlla ko ci yàlla may maa ngi xaar sama drapeau bi nag. waa day ñëw yow loo bëgg yàlla jàmm sama drapeau bi nee naa ko affiche bu mag laa bëgg drapeau. incha allah rabi. waaw te maanaam moom démb la. Hmm. di wax sëñ Abdou Karim na gën a taal lamp yi. lamp yi nag gën na na gën a leer mm-hmm. waa di nuyu sama xarit bi nga xam ne ATM borom New York ATM waaw sama waaye la sama xarit la maa ngi koy siyaar bu wér wér mm-hmm. di nuyu sama euh, am di jàmm yi sama waa kër sama ñëpp daal di nuyu sama entourage di nuyu sama jabar mm-hmm. ak samay gorog yëpp di remercier sama yaay ak sama papa di nuyu Habib borom Kaolack nangaan maa ngi koy siyaar bu wér wér waaw di ko rappelé numéro bi mu gaaw 77 378 euh, 07 00. foofu ngay def pour jot Idrissa. waaw foofu nga am na whatsapp am na lépp daal ku ko ci woo ñu jot ko li ñu Idrissa Ndiaye moom ku ko gis sa soxla mooy nga nekk fi nga ñaak fi ne ngeen déggante. Mm-hmm. sa soxla dina aju man maa ñaan si darajay Seydi Serigne Abdou Karim mm-hmm. képp koo xam ne soo fi ñëwee sa soxla narut faju yàlla bu ma gis. te ñaan naa ko di nuyu tamit waa bi ndax def naa fa séjour bu neex war fa delluwaat mhm. maa ngi leen di siyaar bu wér di ñaanal ñëpp daal ay jël ñëw la ñu dem def ji documentaire ci ah, kàttan yàlla su ngeen paree rek loolu amul problème kon neex na kon kon <laughs> fanta dégg loolu mais kon Cheikhou am nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax jàkkaarloo ak moom muy Serigne Idrissa Ndiaye boo xoolee vraiment xale la si jëmm ji mais tamit macha allah li mu yor tamit. mooy loolu kon dégg ngeen kàddu yi mu fi wax lépp rek dugg na ci état bi dugg na ci wàllu football bi dugg na ci làmb ji dugg na ci lépp loo xam tamit tamit laaj na tamit pour ñu waxtaan si kon ñi ngi am mbégte ak kontaante dalal bi mu dalal ak ak yéen fi ci këram. Kewel foo nii la fépp fu gars yi mënti nekk rek ñu fekk leen fa dégg leen suñu micro waxtaan ak ñoom di wax jàmm ak xéwal yàlla yàlla tur askan suñu gaal jërë ngeen jëf wasalaam.